Kuko ko xoo jàng suba ngoon sa aajo faju ndax hadis ba dane ku ko jàng ci ak suba te wóolu la mu ëmb boo faatoo rek yendu ji àjjana ku ko jàng ci ngoon it te gëm li mu ëmb soo faatoo fanaane àjjana moo tax حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ mën ci dool nga mën ko njëkk am bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti doon nga mën ko ñëk am neena li ñu wax subhana dil mulki wal malakut subhana dil hizati wal jabarut subhana al hayy allazi la yamut subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh neena lolu mo xam ngay def bis bu ne nga jang ko mo xam ngay def ay bis bu ne nga fexé ba jang ko ben yoon mba da nga fexé ba wer wu ne nga jang ko ci ben yoon mbaa sax at mi yëpp nga jàng ko ci benn lu ñu mën doon rek su borom nan la jéggal mboolem bàkkaar yi nga defoon ca at moomee sayyidul istixfaari sangub sàkku njéggal dafa am ñaan goo xam ne ñaanuk sàkku njéggal la te mel ne mooy sangub mboolem xeeti ñaan yi nga xam ne dañ cay sàkku njéggal moo tax addis ba tudde ko sayyidul istixfaar ñaan nga addis ba tudde sayidul istixfaar ku ko saxoo jàng suba ngoon sa ajo faju ndax addis ba dane ku ko jàng ci ak suba te wóolu la mu ëmb boo faatoo rekk yendu ji àjjana ku ko jàng ci ngoon it te gëm li mu ëmb soo faatoo fanaane àjjana moo tàmbalee allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ba fama yam serigne bi dana ko di andi ci yenn téréem ko amé sax taxmis tuhfatul awwah amna ca mujj mën na ko xool foofa sax ku amee masaalik li ëpp ci yi andi nañu fa ñaan yaay sama boroom yow rek ay buur yaa ma sàkk may sab jaam mas na maa yéene nekk ci li ma wëlërante yow te mooy gëm la ak topp la waaye nag dama néew kàttan nag ma ci dimbale yàlla nag ma musalit ci ayu jëf yu bon yi may jëf bañ ma ko topp li nga may xéewal lépp mënuma koo wax te fu ma toll maa ngi def ay bakkaar kon jéggal ma ndax yow rekk yaa mën a jéggale bakkaar farlu bu baax ci bu la kenn mën a waxloo ay caaxaan bu ñu la bëggee waxloo caaxaan rek wëlbatikul wax subhanallah mbaa nga wax alhamdulillah mbaa nga wax laa ilaha illallah wala nga wax allahu akbar wala nga wax لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لولي جبلتي أو بنفي الحول والقوة يا أخي عن غير ربنا دق تخي كاتن ني كين امكو كوما يالا سخال كو يالا ني يالا ريك كو موي مخنام لا حول ولا قوه الا بالله مولا نك بن لا بوغي واخ لوي تياخان دال فخيل با تودو donn ci baat yooyu mbaa nga boole leen waxandoo ñoo di albaaqiyaatu saalihaat mooy subhaanallaahi walhamdulillaahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wala nga julli ci yonante bi nga jéggulu sa boroom wax astaghfirullah wala rabbi xfir lii mbaalu ko nuru wala boog nga jëmal si yitte ci xalaat ci lu lay amal njëriñ sa digganteeg sa boroom fii ci adduna ak foofee ca alaxira lépp loo soxla si wàllu zikir wala mariage moo xam soxna nga bëgg wala borom kër nga bëgg wala sax impuisance sexuelle moo la sonal wala sax doom nga bëgg wala sax rab moo la jàpp wala seytaane wala rawxaan moo la sonal wala nga tëju wala sax yow da nga bëgg tukki ak réew boo bëgg dem wala sax problème visa mooy sa problème wala da nga bëgg protection tool contre contre maraboutage wala da nga bëgg réussir ku am nga am ku amul nga am bayre tere njaay wala sax da nga feebar te xamoo lan moo la dal lépp Inshallah allah traité nañ ko si suñu livre bi solution 2.0 wala da nga bëgg liggéey war nga liggéey ba sonn mëno am liggéey wala nga bëgg dem entretien lépp aussi traité nañ ko si suñu livre bi solution 2.0 li si xaar wala da ngaa bañati sax ñakk xaalis lépp ñu ko dëxëñ ci seen livre solution 2.0 képp ku si bëgg mën nga ñu contacter si 77 496 29 13. waa livre bi rek comme ñu ko doon waxee ñu ngi si ànd ak Serigne Moustapha Samb soldaaru Bamba. si ànd ak aussi sëriñ ibrahima gay moom moo géré 30 vidéo privé yi nga xam ne mu ngi ci livre solution 2.0 ñu ngi ci ànd ak aussi maître mohamed doso mu nekk borom xam-xam bu yàlla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir liman وقرن في